salaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu am nañu mbégte ndax ñu digtal leen kàddu bu amaana te neex lool kàddu bi daf ñuy xamal diggante yàlla ak nit ñi yombul dara ndax ngeen am ay nataal yi leen di mën a wax firnde yi waaye bu ngeen dégloo jeetaay bile di ngeen ci mën a ràññeeku bu baax ñu ngi leen di ñaan ngeen déglu ko te di topp suñu jeetaay te di xalaataat bu baax ci ni ngeen ko dégloo te di ko baamtuwaat di ko dégluwaat ca njalbeen ga yàlla rekk moo amoon daara amuloon yàlla rekk a nekkoon yàlla moo sàkk àddina bu mu sakkee àddina maanaam asamaan si ak suuf si géej bi ak lépp lu mu ëmb noonu yàlla daldi sàkk guddi ak bëccëg bëccëg bi mu daldi ko sàkkal naaj pour mu di ko leeral guddi gi mu daldi ko sàkkal lépp loo xamante ne def ci leer maanaam biddew bi yeeg ak lépp li mu ëmb yàlla bu mu gisee ne loolu baax na mu daldi tuddee bëccëg bi bëccëg guddi gi mu tuddee ko guddi mu daldi am leer bu koy leeral